di ziare bu baax Cheikh Mamadou Bachir borom Daarul Muxti sëñ Basiru Anta Ñaŋ mi ñaan suñu borom mu yàgg fi ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ak kër gi mu sëñ Alxaaji Buso mu sëriñ Mor Roqiya sëñ Mor Roqiya ay di bu baax sëñ Alxaaji Buso mi nga xamee ne mooy xalifa sëñ Abdul Karim di xalifa itam soxna Faat Cerno mag ci njabootu soxna Faat Cerno ñu ngi koy ziare ba di ko ñaanal suñ borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér di wax ne tey ñoo ñëw andil leen jenn jàmbaar ci jàmbaari lislaam yi jàmbaar yi nga xam ne bu fekkoon alquranul karim di wàcc aw turam dina ci rot def nañ ca li leen war lépp bokk ci ñi suñ borom di wax ne rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillah dara moonta dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala bokk ci ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi wax ne kaanu ibadan bi taatin li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati kon mi ngi bokk ci seeti sëriñ bi mu doon ñaan naan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu kon kooku lañu war a indi tey war a waxtaanee ay jaar-jaaram ak ay jikkoom bu ko defee jamono ji mën a delluwaat ci ñoom ndax dañoo soxla ñu mel ni ñoom ngir delluwaat ci ñoom ngir lu bari ci jamono ji li waral yàqute gi mooy ñàkk am ay royukaay te moom mi daa bokk ci royukaay yi nga xam ne ku leen roy sa àdduna dina baax sa àllaaxira dina baax muy sëñ Abdul Karim Bousso moom sëñ Mor Roqiya Bousso moom sëriñ Cheikh Bousso moom sëriñ Bousso bi waaye sëñ Abdul Karim Bousso moom soxna Faat Jaaro moom borom daarul mooti yaakaar naa loolu doy na dañuy jox sëñ Jili bu ko defee mu nuyoo bu ko defee nag ñu doog a digg incha allah ci waxtaan wi aoudu billahi min alcheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaani ila yawmi ddin ginnaaw ba sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam di ndokkeel ak sant cheikhul xadim di ñaan cheikh madul muntaxa suñu borom guddal aw fanam te bàyyi ko ci kanamu njaboot gi ak njabootu sëriñ Touba gi yëpp ginnaaw loolu itam ñuy nuyu nag mbokk yi yi nga xam ne ñoo teew fii di jiital ci nuyo bi euh, Serigne Fallou Bousso moom Serigne Abdoul Karim buso ak mbooleem njaboot gi waaye ñu jël nuyoo boobu di ko teg ci loxol euh, taawam bi muy Serigne Abdoul Karim Bousso mi nga xam ne moo mooy kilifa ak jotaay bi. boo ko defee comme ni ko Serigne Cheikh waxee rek jàmbaar ji nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane mel na ni junj na ko kon xam naa buñ jëlee kàddu yi nuyoo yi dañ koy jox moom bu ko defee mu présenté ni jotaay bi demee bu ko defee nag ñu fas yéene tàmbali waxtaan incha allah rabbi euh, ki ñu bëgg a waxtaan nag wax na ko muy Serigne Abdoul Karim Bousso incha allah rabbi waxtaan wi tam euh, lañ ci jublu mooy xam seen. pas-pas ya pas-pas yi mag ña ak seen taxawaaya ak seen dow ga boo ko defee loolu itam jàngat ga itam euh, sabab bi mooy ñu mën caa roy roy gi itam bu amee ca la jëriñ yu mën a am ndax euh, xañ na waxtaane euh, nit baax na waaye waxtaane kuñ mën a roy nag dasa dasa raw loolu itam roy ga itam ca la ca lañu ca la ñu mën a jëriñoo ndax suñu borom dafa wax ne wallazina amanu wattabaatuhum durriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim durriyatihim ba ma alatnaahum min amalihim min shay gaa ñi nga xam ne dañoo gëmoon yàlla seeni sa dikk topp leen ci ngëm yàlla googee daañu doon aj ñoom sët yi doon doonte seeni jëf sax ëggul ca dayoo seen euh, maam yooyee ñu aj seeni jëf bañ tolloo ñoom ci ay daraja te loolu du wàññi seeni jëf dara kon loolu itam ngir ñu mën koo am nag da il faut ñu xam mag ñooñu seen ay taxawaay ak seeni pas-pas ak lañu nekkoon ba mën caa roy boo ko defee ci loolu di juddoo kon dañuy joxaat suñu Cheikh naa joxaane boo ko defee mu présenté incha allah ñu dugg nag ci waxtaan bi. ok jërëjëf sëñ Jili ci nuyoo bu am solo bu matale boobu fàttali ni ci jataay bi ñu ci ànd ak sëñ Abdul Karim Bousso mi nga xam ne moom la ñu tuddee maamam ji ñuy waxtaanee nii te mooy taawu sëñ Alaaji di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi loolu ci kanam waajuram bi ak yi rakkam yi mu àndal lépp rek liggéey bi ak mbokki taalibe bi yëpp euh, sëñ Jili wax na ko léegi jëmm jooju ñuy waxtaan nag mu sëñ Abdul Karim ci la ñu war a ñëw nit nag ñaare boo koy waxtaanee faaw nga xam mooy kan la ci jiitu mooy nga xam ne ko ci aw askanam nga xam fi mu bokk ñaaral ba itam nga ñëw ci feeñu jamonoom ñëw ci am njàngam ñëw ci ay jikkoom ñëw ci ay réalisation ñëw itam ci seere yi nga xamee ne moom la mag ñi doon def ci moom yaakaar naa yooyu mooy tomb yi nga xam ne warees sa cee jaar bu ñu bëggee xam nag askanam dañuy delluwaat ci askan yu baax yi nga xamee ne ñoo am ci réew mi tey foo xool mbokk mu baax boo toppee askanam mu bokk ak sëñ Abdul Karim sëñ Thierno Bousso moom sëñ ma roq ya yàlla na ko suñ borom dool li yërmande ak ki ngërëm ca barzaq silsila bii nga xam ne moom lay bëgg a wax nii ci moom laa ko njëkk a dégg mu ne ñoom ñi nga xam ni ñoo bokk sëñ Mor ya ak soxna cer Cerno am nañ juróom-ñaari càlla la ci mamaaram sëñ moom sëñ Maam Mor xam si diine dégg naa ma ne kim ci xamoon ñu ko daan ñu ko daan naw ñeent la ci amoon te ñëpp jàppoon nañu moo ci gën a berle ay tariqa yum jaar ba ci mamaaram moom mii sëñ Karim na boo ko toppee da am juróom-ñaari yoon yoo xam ne saa yoo ko toppee mosoo ci maam maaram naaj jaar bu gaaw ba ci jiitu mooy sëñ Abdul Karim Bousso soxna Faat Cerno mooy waajuram soxna Faat Cerno maam Cerno Ibra Faati maam Mor Anta Sali maam Balla Aysa maam maaram mooy bu njëkk bi ñaari bi sëñ Abdul Karim Bousso sëriñ ma roq yu Bousso sëriñ Cheikh Bousso sëriñ bu be maam Balla Aysa Ahmadou Soxna Bousso maam maaram muy ñaar sëñ Abdul Karim Bousso sëriñ Mor Roqeye Bousso sëriñ Cheikhu Bousso maam Fati Balla maam Balla Aïcha maam Maharam muy ñett nga ñëw sëñ Abdul Karim Bousso sëriñ Mor soxna Roqeye Mbàkke maam Mor Anta Sali maam Balla ñeent nga ñëwaat ne sëñ Abdul Karim Bousso soxna Faat Cerno maam Cerno Ibrahima soxna Faat Issa Diop maam sa Mbàkke Ahmadou Soxna bu so Maharam juróom juróom benneel bi nga ne sëñ Abdul Karim soxna Faat Cerno soxna Faat Ñang soxna Xari Bousso soxna Faati Balla maam Balla Aysa maam muy juróom benn juróom ñaareel bi te mooy mujj bi nga ne sëñ Abdul Karim Bousso soxna Faat no soxna Faat ñaŋ njoogu mati maam mati Mbàkke maam Balla Aysa maam Maharam yu juróom-ñaari càll la yoo xam ne kuddul moom sëñ Abdul Karim Bousso mi du kum bokkal sëñ ma roq yi ak soxna Faat Cerno fekkoo leen ci càllal yi nga xam ne am nañ ko ci maam Maaram kon jàpp naa ne kooku bu ñemoon foofu te boo toppee càllale gi ci soxna Faat studio mu yóbbu la mu yóbbu la kokki boo ko toppee ci soxna Faat Ñang njoogu mati mu yóbbu la aafe noonu la toppee ba ci ñi baax ci réew mi yëpp ni ma ko waxee tey boo leen toppee càll ak sëñ Abdul Karim bu mu bokk ak ñoom kon mi ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo riis aw askan waaye nag amaat beneen titre bu mu am titre bi mooy lii Cheikh dul Fadal nga xam ne sëñ Ibrahima Diop almasor yi moo ko doon tagge di wax ne yaay di ko wax ne eh, maanaam yow da ngaa feeñ ci diggante jant ak weer mooy laqad tanashata min shamsin wa min qamarin fasirta bahran minal anwaari tas daxiru dangaa feeñ ci diggante jant bi ak weer yi muy diggante mbàkke ak mbusoo bi moom itam loolu la ko yàlla defal dafa feeñ ci diggante mbàkke ak mbusoo bi ndax mbusoo bi mooy suñ ma roq ya suñ seexu suñ mbusoo bi waaye mbàkke gi mooy soxna Fatou Thierno borom daarul moxti Mamour Anta Sali ba Mamba Laye ma maaram kon nga gis ne kon moom diggante boobu ci la feeñ kon yaakaar naa kuy xool askan wi askan wi mu bokk yaakaar naa loolu doy na ci sëkk kon xam naa kon dañuy jox si njëli bu ko defee mu ñëw ñun li muy dolli ci askan wi ak feeñu jamono gi fi mu feeñee jamono ak itam euh, la ca xew ca feeñu jamono gi yëpp ba nit ñëwee ci am njàngam incha allah bisimilah. kon suñu Cheikh naa ni nga ko waxee rek loolu demee noonu lay demee euh, dafa mel ni nag biñ ma waxee damay waxtaan Cheikh Abdou Karim meloon na ne lu xaw a euh, diis ci man ndax koo fekkul ku fekkiwul jamono. léeg-léeg wax ci moom dana xaw a jafe waaye nag ba ma xoolaa bi ma xoolee ak li nga xam ne moom lañ jëlee ci mag ak nett yi ma ne ah moom waxtaan ko dana doon di yomb ndax shaar ba dafa wax ne alxattu alxattu tabxa madal ayaami daahiratan wa saaxibul xatti taxta al ardi madfuunu danay bind dafay des diirub jamono di nekk loo xam ne toujours nañu teg seen bët te borom bind ma sax mën naa ma ma ngi denc ma ngi denc suuf bu yàgg Euh, loolu boo ko xoolee ci téere yi nga xam ne ñoo jiitu woon am na fi téere yoo xam ne am nañu ay téeméeri téeméeri am nañu ay téere xam ne mën nañ junni at mbind nag dama ne man nag euh, mbind ñaar la dafa am lu ñu ne xattul mu taarix euh, xat xattul mu arrix yi wa xattun taarix mbind mi nga xam ne mm, mu boroom xam-xam bi nga xam ne wala historien bi moo ko ko bind wala moo xam xam-xam bu mu man doon scientifique bu mu mën doon ci domaine l'islam yi moo ko bind kooku mën naa des ay seekali seekal wala ay mille ans yu baree bare am na nag mbind moo xam ne taarix ci moo ko bind donte bind ko ci kayit yi nag dafay nekk mbind moo xam ne nit nit koo xam ne taarix mooy bind histoire am dafay nekk nit koo xam ne taarix mooy bind histoire moom Sëriñ Abdou Karim nag dafa bokk ci ñi nga xam ne taarix dafa bind seen histoire donte yàggagul noonu ba àgg ca lool ga xaj na bindeegul defagu defaguñu ay bind ci moom waaye teewul nag Euh, xam gi ak nettali yoom maa ngi fi euh, ni ma koy waxee wa ma zaala alfaadu shahadat tatabawaxu min afwaahil mushahidin kàddu seede yi ba tey mu ngi jóge ci ñi nga xam ne ñoo fekk woon jamonoom di di ko wax ñu di ko dégg ñi nga xam ne ñoo dund nag ñoom itam di wax ñu di leen dégg kon dana mel ne dana neex a waxtaane incha kon moom foofu la ñu koy dugal euh, bi bi ñu waxee itam dañuy waxtaan Cheikh Abdou Karim dama xool euh, mu mel ni dana jafe waxta waxtaane wala boo boo ko bëggee waxtaane dana yaatu lool ma laaj sama bopp ne man Serigne Abdou Karim Bousso al aalim lay waxtaane wala Serigne Abdou Karim Bousso mi nga xam ne borom xam la woon wala damay waxtaane Serigne Abdou Karim Bousso al aabid Serigne Abdou Karim Bousso mi nga xam ne jaamukatu yàlla la woon wala damay waxtaane Serigne Abdou Karim Bousso euh, dawruhu euh, fi l xidmati wa ndax damay waxtaan Serigne Abdou Karim Bousso rôlam ci euh, xidma ndax xam ku na xam yoonu murid xam ne fondement bi euh, li ñu tudde al xidma wala ibada la te moom suy na ci euh, rôle bu rëy am damay waxtaan ak Serigne Abdul Karim Bousso wa xusnu alaaqatihi maa shaxsiyatin fi usrati al mbakkiyati wal musubiyati wa gayrihima ndax damay waxtaan ak Serigne Abdul Karim Bousso ak rafetu relation ci diggante jëmm yi nga xam ne ñu xam lañ ci famille Mbàkke ak Mbusoobe ak yu dul ñaar yooyu waaye ma tënku ñaar yooyu ndax xaj na yooyu ñoo ko gën a jege wala damay waxtaan sëñ Abdou Karim Bousso fii fii mi fii misaanil wus'i wa saxaa ndax damay waxtaan sëñ Abdou Karim Bousso ci eh, teg ko ci balance yaatu mu yaatu woon ak tabe mu tabe woon am damay eh, wa ijaabatuhu wa mawaahibuhu lil karamaat ndax dañuy waxtaan si Abdou Karim Bousso mi nga xam ne ko amoon ijaaba la ba ñi jamonto jamononte woon ak moom bépp xam nañ ko ak may yëg suñu borom mayoon ak lu jëm ci wàllu karaama am dañuy waxtaan Serigne Abdou Karim Bousso wa wafa ul aadi wal asmi ndax dañuy waxtaan Serigne Abdou Karim Bousso ku matal kóllëre kooku kooku nga xam ne ko amoon dogu la kon mel na ne loolu bu ci nekk bunt la boo xam ne mënees na ubbi waxtaan ci ci moom te mu doon bunt bu yaatu waaye incha allah noonu ma ko waxee laay tàmbalee benn par benn kon fi ma njëkk njëkk wax mooy Sëriñ Abdou Karim Bousso al abid al alim waaye nag bala nga dugg ci al alim dañuy wax moom lan mooy cosaanam bu dee cosaanam moom euh, defe naa ay famem ñu ñu xam lañ ci réew mi daanaka euh, mënees naa gàttañlu ci tudd lu néew rek ci ay waajuram ci wàllu ko ay ay ay baayam ak ci wàllu itam euh, côté yaayam moom Serigne Abdou Karim Bousso nag euh, mu ngi feeñee jamono ci diggante ñaar ñu ñu xam muy ku ñu wax sëriñ Mor Roqee Bousso ak Soxna Fat Thierno sëriñ Mor Roqee Bousso moom moo doonoon taw Serigne Cheikh Bousso moom Serigne Serigne Bousso bi. Euh, sëriñ fat euh, soxna fat cerno itam moo doon taawu maam cerno ibrahim moom maam Mor Anta Sali moom nag euh, moo ngi feeñe jamono moo ngi feeñe jamono 1912 euh, 1912 ab takk la ndax amoon na ay xew-xew yoo xam ne xew na ci loolu itam fan la ñu ne ci la ndax loolu mbay gi mbay mbay gi sil moom lool loolu moom ma ko wax te moom euh, mën naa ne euh, c'est un grand historien waaw euh, c'est un chercheur bu mag itam ci yoonu murid bu ñu xam chercheur la boo xam ne xam nañ ko surtout nag ci matière histoire kon Ceyeen Ceyeen Jolof la gane jamono at moom itam ci la Serigne Touba jugee Ceyeen wuy si Jurbel bi nga xam ne tubaab bi ñoo ko woolu foofu kon moom si gàttan ci wàllu ko gane addunaam foofu la gane adduna ci ñooñu itam euh, la ci ñu baax ñooñu itam euh, ci la feeñe moom nag euh, bi mu toll ci waxtu jàng sëriñ Mbàkke Buso laaj na sëriñ sëriñ Fallu Buso mi nga xam ne mooy ab xalifaam mu ne sëriñ Mbàkke Buso moo ko moo ko jàngal alquranul karim moo ko jàngal alquranul karim xam-xam itam nee nañu maam Cerno Birahim moo ko jàngal donte maamam la maamam la ndax moom bu bi ma xoolee li mu fekkante ñoom ci at fanweer at benn loolu loolu lu la bi ma xoolee itam ndax eh, Sëñ Mbàkke Sëñ Mbàkke Buso ak maam Cerno Birahim suriwuñ eh, feeñu jamono ndax sëñ maam Cerno ngi feeñ jamono 1862 am nañu wax na 65 waaye 62 itam sax sëñ Mbàkke Buso nag 1864 eh, maam Cerno Birahim mu ngi fi jógee 1940 2 moom la fi maam Cerno jógee suñu bàkk mu jógee 1945 moo kon moom jamono jamononte ak ñoom lu yàgg boo xoolee ñoom ña ngi magee suñ mu donte ay baayam lañ eh, ñoo ngi ko magee ñaar fukki at ak benn jëm ñaar jëm ñett du passé loolu ñoo ngi magee itam sëñ Abdul Karim eh, donte ay maamam lañ ñeen fukki at ak juróom-ñett mu dund ak ñoom fanweeri at yu teg ci diggante ñaar ñooñu nag la jaar muy suñu bu Buso nga xam ne fa la jàng alxuraanul karim ginnaaw bi itam nag ñu joxaat ko maamam maam Cerno fa la yeggalee njàngum xam-xamam te ñaar ñooñu ku leen xam ci eh, ci ci ci ci ci ku leen xam ci xam-xam ci réew mi nga xam si Mbàkke Buso moom la ñu tuddee muftil eh, yàlla dogal mu jaar foofu fa fa fa la tàmbale itam ubbeekoo itam ci njàngum xam-xam xañ na moo ko yeggale nag ci keppaaru maam Cerno ndax foofu la defee eh, ab ab ab yaram lépp loolu nag dafay wane na kon kon ku jaar foofu jaar fa ci anam gii moo fa jaare munta ñàkk laa la budda munta ñàkk mu nekk koo xam ne borom xam-xam lay doon moo tax moom nag doon na borom xam bu mag a mag moom sëñ Abdou na ci li nga xam ne euh, day tegtale loolu bi ñu demee ba gis ne sëñ Mbàkke ak ni mu tolloon ci xam bi mu jëmee mag mag ñi neen dañ doon wax naan sëñ Mbàkke Bousso bu demee ba gisituñ ko ana kan mooy ki nga xam ne moo koy ràmpali ci xam-xam ana kan moo fi wut maa ngi dañu amul am tiit ak yàq ci lool ñu ne moom day bu fi jógee day xanaa suñu mbàkke suñu Abdou Karim Bousso wala suñu Xasan Bousso moom suñu ñooñu day lañ xam ne mën nañoo si suñu mbàkke Bousso kon kooku loolu suñu alaaji moo ko ko nettali kon dafay wane eh, dayoo xam-xam woo xam ne àggoon na ko ci xam-xam te loolu itam ñu baree baree bare seede nañ ko ku mel ne Cheikh Mahamadou Fadal itam nee nañ bis eh, gis na ko muy ñëw ci jotaay bu mu toogoon te ñu bari nekkoon fa ba mu ko jubee mu ne Abdul Karim faxlun mun min fuxuli diin Abdul Karim faxlun min fuxuli diin wokk ba muy ñetti yoon maanaam loolu mooy kàngam la ci kàngami diine yi kàngam la ci kàngami diine yi te fa Fallu ku ne xam na ne du du du waxantu yàlla dogal na tam moom ku ku a ah, ilmul miiraas la te loolu xam nañ ne bokk na yu xam-xam xam ne moo gën a jafe ci eh, li ñuy jàng ci fiq daanaka ba Yonent bi waxoon na ne awwalu ilmin ah, yudaxu an ummati ilmul miraas yi xam-xam bi nga xam ne mooy njëkk sànku ci sama xeetu day mooy xam-xamu miraas te loolu ku kuy jàng da ko xam ndax ku ne xam ne miraas moom euh, xaj na nekkiwul lu yombe noonu ba euh, ay yi nga xam ne moo ci ci sax ci ndonge daar yi jàng dañuy wax ne mu bokk na ci ay yi yi gën a jafe ci alxuraan waaw kon euh, loolu itam yàlla may na ko itam nag mu doon ko xam ne ku yeewu la ci wàllu calcul calcul nee nañ ku ci ku ci ku ci yeewu woon la li ñuy tuddee mathématique tey waaw waaw xisaab ba dégg naa ci jamono yi mu nekk Bawol sax coopé ki coopérative bu Jurbel bi soxla woon nañ ko ci wàllu googu noonu ba daan nañ ci dimbale itam ci wàllu googu kon foofu la jaar ci wàllum njàng waaye itam loolu ñu junj rek ngir gàttal dafay wane ne kon moom boroom xam-xam bu mag la woon loolu nag euh, bokk na ci yi nga xam ne dama ko tënkoon ci ay bëyit euh, ma waxoon ne ba mu matee dal jàng rakki maamam aalim bu mag ba tarawoon fii maasam te seyxu mbàkke buso man lay junj moo ko xamal quraanu junj yëjju moo ko xamal quraanu ak mbootam ya te lii e, moo ko xamal quraanu ak mbootam ya li lee taxoon mu peeg saraay ak téere ya mu daal di dem kër Cerno Ibra Faati mu daal di dem kër na Ibra Faati ka wuy ji woon ndar niru gaynde ak baati faqih bu mag ba te woon fa daaru moo daa xamal si xaaru ak kibaaru moo ko xamal xam-xam yi fa kaggu sol koy xikam peegoon na mboolem fànna ya te moo ko yar ba mu defu der ne nërr mu daa di koy yee teg ca bam ne jar kon loolu ay ab ay ab ay yoo xam ne euh, day wa day saxal lool noonu maam euh, euh, xam naa sax njëkkoon naa njëkkoon naa wax ay maamam euh, dama ko dama ko dama ko dama ko indiwut si njëlbeen gi waaye xam naa ba tey weesuwut dama ko defoon ay ay ay abuyaat itam mën naa ko wax rek jàll maam Njaay sëriñ Cheikh Bousso Alim ba ak Cerno Ibra Faati kay faqih ba baay baay sëriñ Mamar Bousso moom roqeya Bamba ko yor tarbiya moo ko tarxiya ndey jaa di soxna faati cerno mbàkke taawam ba woon duy na ca mbooti mbàkke adma tubaab ya wooye woon Cheikh Bamba mu wuy ji jurbeel an bi ba boobee la feeñ jamono ama la chochi loolu mooy ci at gàddaay gi jolof ca yéen la woon ca ama bay xësi bay xësi nag mooy tolloog 1912 euh, ci miladiya kon loolu mooy euh, ganem jamono ak ay waajuram yi nga xam ne ñoo ko seq ak itam euh, fi nga xam ne fi la jaar ci wàllum jàng. waa kay jërëjëf sëñ Abdul Xaadir macha allah xamal nañu sëñ Abdul Karim ci fi mu jànge xamalaan ci itam ci woy yu am solo yooyu aw askanam ni ma ko leerle woon léegi ci ñaari waajuru seel yooyu te mooy. sëñ ma roq ya ak soxna Faat Cerno mu leeral ci lu am solo mooy ñoom ñaar ku ci ne mooy taaw mooy taawu baayam sëñ ma roq ya mooy taawu sëñ Cheikhou waaye sëñ soxna Faat Cerno mooy taawu borom Daaru Muxti mu amaat lu yéeme ci am sëñ jili mooy ku xam ne ne sëriñ bi maam ji soxna Faat Cerno soxna Faat yi Isa Jóob laa wax suñ ba suñ mag bi da ko fonkoon lool ba nañ ne moom la daan wooyee sama ndey ngir bi mu gisatul soxna jaara moom la jàppe woon muy waajuram ba damay Cheikh Mamadou Ami Diop Dagana day wax ne suñu moo wax ne bu fekkoon ne maanaam waajur wu jigéen kenn dina ko fàtte ma xam ne soxna Fatou Issa taxaw na ci man ba ma fàtte sama waajur jigéen ngir taxawaay boo xam ne am na ko ci moom loolu nag taxoon na ba sëñ bi am lu mu moon ci moom ba muy samp sampal ay taawam këram ay taawam moom sëriñ bi kër ak njabootu soxna Faty Issa Diop la jël sampale leen ko kër kon a xam na ni sëñ Mourou Moustapha soxna Aminta mu nga xam ne sëñ Daam Abdourahmane Lo ak soxna Aminta Mbacke moom maa war ànd sëli moom mooy juróom moom la jël jox ko sëñ Mourou Moustapha jël rakkam soxna Astou jox ko sëriñ Fall soxna Aminta moom mooy waajuru sëñ Mbacke màddina ak soxna Mariam mu Mbacke mu sëñ Mourou Moustapha soxna Asta Lo mi nga xamee ne moom la sampale kër sëñ kër sañ Fàllu moom mooy wajuru soxna benn Fàllu ak ñoom soxna Soda ñu bokkal amoon na sëñ Mudu Maamun dafa teel a wàcc waaye mu jël nag taaw borom Daaru Muxti nag sampale ko sëñ ma ya kër kon na xam ne ne ñoom ñëpp Thiène Jolof la woon yàlla dogal foofee sëñ Abdul Karim feeñ fa jamono ci Thiène Jolof ni nga ko waxee ci at moom mu nga xam ne at mu at mu taarix di fàttaliku la at moomu la sëñ bi doon wax ne raamu masiri ila jurben la daal la chachin law aayanu sirra ma fi sayri ma raamu fa sayru mawtun ala man nazaron wa azan wa annahu liya ibqaun wa ikraam yéen a ngi sàkku sama dem njaareem waaye bu ngeen xamoon mbóot mi dëgg dëgg dëgg ko sàkku ndax dem samak dem njaareem mooy seenu faatu yéen noon yi tam moom man mooy samak yëkkatiku mooy samak des ba faaw boo ñëwee itam ci feeñ jamono gi sëriñ bi moo ko tànnal aw tur tudde ko Abdul Karim loolu tam di beneen euh, jagle goo xam ne am na ko moom sëñ Abdul Karim ñaareel bi itam mooy sëriñ bi sëñ euh, Ahmadul Xadim borom Tuubaa xam na ne ku ne xam na ne booba la jóge foofu ñëw njaareem ci at moomu di l'Assassine te mooy 1330 sëñ ji li ñëw na ci ñu ko jàngal dañuy wax ne suñu naamar moo waxoon doomam ne ko xudil ilma an allazina istaqaamu wala taxudil ilma an allazina qaalu boo jël xam-xam na ko jël ci ñu defaru ñu wax ne itam borom xam-xam xam-xamam dina feeñe ci ñaar dana feeñe ci ki ko jàngal ñi ko jàngal dana feeñe ci ñim jàngal dana feeñe ci ñim bind daña feeñe ci ay jëfam muy ñeent yi xam-xam ci lay feeñe mooy tajaliyaatul ilm moom sëriñ bi sëriñ Abdul Karim nag yaakaar naa buñ nee sëriñ Mbàkke Buso moo ko dalal sëriñ jëlee wax na ko léegi mooy muftil mooy maanaam ki nga xam ne moom la waa réew mi dellu ci moom ci xam loolu ñëpp nangul nañ ko ko mu jàngal ko alxuraanul karim borom daarul moxti maamam jàngal ko xam yaakaar naa borom daaru moom xam-xamam moom itam ñëpp reconnaître nañ ko ndax lu ko waral mooy Sëriñ Tuubaa moo ko jàngal Bàmbaa ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng liggéey la boole woon ba am ndam xam ne sëñ bi moo ko jàngal Bàmba ko yar yor ko ci waxtu sixar yi mos la tàggoog moom li waxtil kibar yi mos la ju yóog ndigalul Seex Bàmba mos la fanaan fudul fa suuf fa der ba lii la sëñ Musaa Ka wax ci moom nga xam ne sëñ mag bi ko jàngal te itam sëñ mag bi doy la woon na xam-xamam ba du ko naari sonalee ci ñëw di ubbee ci moom mu leen di laaj daa mujj boole leen ak moom xanaa boo demee ca sëñ Musaa Ka da ngay dégg mu naan euh, ku weddi laajal naa riwaa day ma ni seen gag ba jàlloon jokku ñëw suudaani bamba ne maam cerno na leen gàgganti man bamba bis pénc bi lay lijjanti keroog la maam cerno lijjanti naari tasaari maanaaya te laalul mool ya nga xam ni daraan gàgganti naari te du sax du yor ab teere kon kooku moo jàngal sëñ Abdul Karim ci wàllu xam li mu itam moom xam-xamam feeñ na ci moom ci yëpp bu ñëwee ci sëñ Abdul Karim comme abid loolu dina gën a feeñ waaye ci jëmmi xam-xam bi rek ni mu ko waxee kuñ dem ba lay tëkkaleeg sëñ bu Buso di wax ne bu fi jógee war nga koo wóotu ci xam-xam moom si moom sëñ Asan Buso rek ñoo am ñoo am maanaam euh, loolu ñu di ko tëkk ñu leen tëkkale ak sëñ Mbàkke Buso waaye itam ci xam-xamu bi mu amoon fiq li ci gënoon a jafe moom la gënoon man wax nañu ni mu ko jekkoo woon sax dafa yéeme muy mirage muy xam-xamu mirage léegi rek mooy xam-xam xisaab te ñaar yooyu ñaari ñooy ànd te dañoo wax yooyu waaye yeneen xam-xam yépp noonu la ko pege woon waaye nag taxasus day am moom taxasus bi ñu amoon mi ngi ko amoon ci wàllu ilmul miraas la ko amoon ko xam ne kon noonu la meloon moom sëñ Abdou Karim Bousso ci wàllu xam-xam comme sëñ jili ku jàng ba noppi nag jaar ci ñoo ñu jàngal la ba noppi nag sam jàng nag war naa feeñ ci sa sa jikko ak say jëf en tant que abid nekk jaamukatu yàlla kon da ñuy waxtaan ak sëñ Abdou Karim comme jaamukatu yàlla bi moom mooy kan waaw sëñ Cheikhouna sëñ Abdou Karim al abid ci la ñuy dugg ndax comme noonu nga ko waxee euh, Serigne Touba li mu jàngale ku ne xam ne moom ci keppaaru Serigne Touba ku ne xam ne keppaaru Serigne ci la yaroo te Serigne Touba dafa wax ne al ilmu wal amalu jawharaani li xayri daarayni yajlubaani xam-xam ak pratique moom la woote xam-xam ak pratique dafa wax ne bu ci nekk la boo xam ne dafay ñoddu ñoddu nit ki euh, jëmale ko ci Eh, yiw ngëneelu àdduna ak alaaxira hmm. loolu itam eh, dees na ko firee maanaam eh, alxidmatu wal ibaada ala amal gi danañ ko firee tam xam-xam ak liggéey moom nag ci loolu nekkoon kon dañuy dugg ci al al aabid bokk na ci li nga xam ne am na ko ñuy wax Baye Salif Ndiaye moom nett li ma na ma ci loo xam ne xëy xëy na lool rek doyoon na sax tegtale ak jaamu ak jaamu ya ak ku fonkoon jaamu yàllaam sonnoon ci moom Baye Salif Ndiaye mu ngi dund ba tey moom mu ngi Tuubaa Bogo ñu bari ci njaboot gi xam nañ ko euh, ku laq at yu bari lay itam moom nee na ma euh, sëñ Abdou Karim Bousso moo tax mu juge mu jugee Kajoor ñëw ñëw Bawal ñëw Tuubaa maanaam bi mu ñëw itam fii la nekkoon ci kër gi nee na ma euh, ba ma dikkee ma doon yaxantu dama ubbi ay bitig marché Ocass nee na booba ci ñi fa njëkk ñi fa ñu yàlla def ma njëkk am tawfiq ak xéwal ci la bokk ndax nee na ubbi naa fa ñaari bitik yëf yi nee lool waaye na booba sama wàccee ci kër gi laay laay ñëw xéwal ba da ko def da ko def di indi ci kër gi yàlla dogal bi xam ne Sëñ Fallu jox na eh, jox na sàkkoon na Cheikh mu ñëw Tuubaa Bogo itam ba mu dikkee nee na da ko woo dama la fay soxla ah nee na mu xool xamul mu daal di jaay jaay mm, bitig yaag marchandise bu fekk si ko nee ba ma dikkee Euh, man ak moom nee na ñoo daan bokk néeg bu ñu fanaan ci addu njëkk yi nee na ma waaye mu ne ma ku neex mu ne ma ku neex waxtaan la te waaw nee na waxtaanam lépp di diine la ak ak lislaam nee na ku waxtaan la noonu ma ko waxee ne ma euh, moom daal bu ñu toogee muy waxtaan ci diine waxtaan ci yàlla wax di waxtu reer jot ba nit ñi reer ba tëdd euh, nee na bu ko defee moom ñu indil ko mu daan xewloo nee na moom ni lu naan xewloo am mbatt la doon boo xam ne dañuy tibbal cer yi dóoru ko ci boobu tëj ko nee na bu ni ñuy tëddee mu commencé nafila nee na ma bokk na ma moom ay at ci néeg bi noonu la daan def nee na bu commencé di julli di julli di julli ba fajar jot mu ci mbatt bi siim nee na mos mos mos daal di tëjaat nee na daal di jubal ci jàkka ja nee na ma nee na su ma ko gisaatee mu nee na mu xewlu nee na waxtu woo lay doonaat lii ma ma ko nettali nee na man ak moom ñu bokk néeg bu ñu néeg bu ñu nekk ba ma waxee loolu nag sama xel dafa dem ci e, ñooñu Sëriñ Tuubaa doon uh, jooy ci xoqa Sëriñ Tuubaa dafa wax ne xoqal bukaa u ala saadaati namwaati tabki la araadi alayhim alayhim ka samawaati uh, mu ne jooy day war na ci ay sang yoo xam ne wéy nañ maanaam jamono ñàkk na leen maanaam génn nañ àdduna sang yoo xam ne suuf sax day jooy da leen di jooy asamaan sax dañ leen di jooy te loolu alxuraan Euh, am na xeet woo xam ne ba mu leen euh, euh, ba mu lim seen ayib dafa wax ne ñooñu fu ma alxuraan dafa wax ne asamaan du leen jooy suuf yi du leen du leen jooy waaw waaw waaw fa bakat alayhim samaa comme ni ko alxuraan boo xoolee ci biir xoq nag dama jàgg ci biir woo xam ne dama fàtt loola ma xam ne kon moom li sëriñ bii doon wax ca gaañu baax ne moo nekkoon ci ñoom muy kaanu isal laylu arxa sitru da xalakin xaamu siraan li ixyaa iddu junnaati waaye li ñu ko mën mooy baaxu fudulan bi dicrillahi xaaliqihim fannamu fi leyli baaxu bil munaajaati ay jëmm la ñu woon Sëñ ko ne tuuti ci biir xasit da ngay dégg mën na ñooñu ay jëmm la ñu woon yoo xam ne saa yoo xam ne guddi gi sëmbartalu na ñu jug di dundal dundal guddi yi ci déyaale ak yàlla waaye loolu jaayoon lépp lu caaxaan jëndee ko déyaale ak yàlla ci guddi yooyu noonu nee nañu itam ci jamono yi nga xam ne ci la nekkee bawal nee nañu bis doon nañ taxawal julli kër gi di lakk xañ na xëy na nit ñi bëgg a bàyyi julli ga dem ca euh, fay lakk gaag yooyu mun leen euh, mu gànta leen daal ci ga galeen ci ñooñu julli nee bi ñuy julli itam bay sëlmal rek kër lakk ngay fay waaye foofu lañ cay jàng rek mooy fonk goo xam ne fonkoon na ko fonkoon na ko jaamu yàlla ngir gàttal nag ñaar yooyu rek ay tegtal la ci fonk farata ak kon ndax bu dee nawaafil moom ku ne xam na ci sunna yi la bu dee nag eh, salatul eh, faraid yi eh, gis nga gis nga taxawaay boobu ñu ñu la wax dana doy ab junj ci taxawaayam ci jaamu yàlla waaye ni ki noonu itam la taxawoon ak jàkka tubaab ne fa nekkoon itam saa boo xamee ne ajjuma jot na dafay jóge ñëw julli si ajjuma bu paree dellu si waat noonu la fonke woon mbooleem xeeti ibaadaat moom loolu moo doon aw moo tax ma ne moo sóobu woon ngirum tasuuf ba jeex ca ëppalu toon yéesalu toon géeju na ca te moo tegoon tànkam siraatal mustaqim te fonk sunna saafiran baa muy muqiim mag ña xamoon jotaaya man nee nañu ma géeju xikam la far na gàcceel waame ma kon Serigne Cheikh mënees naa tënk loolu ci euh, al aabid ngir ñu mën a dugg nag ci dawruhu fil xidmati wa tarbiyati bu ko defee ñu romb ci rek Euh, ka mururil kiram incha allah. waaw kay jërëjëf sëñ Abdul Khadir macha allah ci indi gi ñu indil sëñ Abdul Karim Ka abid nekk gi nekk jaamu yàlla ginnaaw bi nga xamee ne xam na ba noppi nag bu fas yéene jëfe xam-xamam. yaa ngi wax ci biir léegi bayit woowu sëñ bi di wax ne al ilmu wala amalu jawharani li xayri daarin yëj lubaani nga xam ne ni moom faaw. wal taalaman bi anna ilman wa amal uma wasilata saadat ajal nga xam ne moom xam-xam ak jëfe toujours ñoom ñooy ànd mënuñoo tàggali ko euh, li nga tegtaloo ci ak jaamu yàllaam Baye Fallou ba ma sama nettali ne ma sëñ Abdul Karim day am waaxoom boo ko séenee boo gisee rek xamal ne waxtu wu julli jonn ndodd nañ ci jàkk ja te nee boo ko séenee muy dem ba yow nga waat nit waatu baa ngay julli nga xam ne moom bala nga fitnaam dëgg-dëgg daal li ko daan wane mooy jaamu yàlla jot te loolu yaakaar naa boo demee ci marché sëñ Moussa Ka bi maamam jox sañ sëñ Ahmadou Soxna Bousso doomu maama Aram doon nañ ko bàkkee loolu ndax ñu wax ne maama Aram bindoon na bis ab dénk séeral ko ay ngërëm yu ànd ak tagg nee su dégg ak nodd day dawaale ba sër ya xottiku li xob biluwaali nga xam ne kon li ko mën a génne fitnaam mooy jaamu yàlla jot ñaareel bi itam liy wane ak jaamu yàlla bokk na ci li nga war a leeral léegi te mooy ñaar yi nga xam ne jaamukat yàlla dëgg ma moo koy taxaw muy nekk qaa'imul layli koo xam ne day taxaw wa jaa'i'un fi nahaar ak di maanaam woor ay bëkk bëccëgam wala muy xiifal boppam ci bëccëg gi ndax koo xam ne da ngay taxaw guddi waaye li ngay mos tuuti lay doon sëñ bi noonu la doon taggee ci xoqa kaanu ya'uduuna tarkal tarkal wirdi ma'a shibaain min al xalaali min asbaabil musibaati nee na bokkoon na ci jikko yi gaa yu baax yooyu dañoo limaale woon lekk ba regg dañ ko boole woon ci maanaam liy sabab musiba yi lekk ba regg ci lu ci lu ci lu ci lu ci lu dagan nag la wax na tarkal ak bàyyi wird bàyyi wird mooy li nga xamee ni tegoon nañ ko ci ay jaamu yàlla te du ay farata yooyu bàyyi ko ak lekk ba suur dañ ko boole woon ci sabu musiba yi loo ko andi nag kaanu idal leli arqa sitra da halakin qaamu siraan li ahyaai dujun naati bu guddi jotee ba ñi ñëpp dem tëddi ñoom ñu fas yéene diyaayaleeg seen borom tabaaraka wa taala damay lim nettali Baye Salim Ndiaye nettali ko léegi ne boo masaa tëdd ak moom bu guddi jotee day fanaan naafila bët set xakim la woon tam loolu moom ñu ko xam ñëpp seeral nañ ko ko sëñ euh, Baye Cheikh Diba te daarul mën naan ak yaa jaay sekk mën naa ko jël comme seere soxna Bale Busu yaakaar naa bàjj maam dama Busu mi fii ci biir dañ ko yéemoon ci maanaam xekk ma yi mu amee woon bu daan wax ak yow mën naa ba ñu tudd benn aaya waaye boo xamee alxuraanul karim fu mu toll da koy xam ngir ni mu meloon. dinaa joxe ay misaal rek yu néew ci loolu eh, Baye Cheikh bi ngi may nettali ne bi suñu Abdourahmane wàccee bi liggéey dafa xam nañ ko denc ci ci ci biti nañ ko waa nañ ko denc ci wetu jàkka ji bi ko dencee. mu ne buñ jullee ci kuuru jàkka ji nañ jullee ci biti ngir bañoon na bu ñu fa jullee euh, mën naa bari ay jël ak yooyu bu jullee ba doom mu dajale leen na leen delloo leen ci yàlla waar leen ñoom ñëpp ne leen nag daa mel ni day euh, niñ mën a misaale sëñ Abdourahman mii fi jógee ak sëñ Mutu Mbàkke suñ borom tabaaraka wa taala day buur bu day buur bu tedd di buur bu màgg buur boo xam ne xereñam eggoon na ci mu defar sàqum juróomu def ca la ko soob bàyyi ko fa ba mu yàgg bis mu ne sàq mi neexatuma defaraat meneen sàq jël la woon ci sàq mu njëkk ma dugal ca daane boobaa dey sàq yee wuti waaye la ne woon sàq mi moo ne ca mi daane loolu laa leen jox diggante misaal sëñ sëñ Abdul Karim sëñ Abdourahman ak sëñ Muudu Mbàkke mi fi bàyyi daane képp koo xam ne toppoon nga sëñ Abdourahman mii mu jóge fi topp sëñ Muudu yëgal ne la nga waxoon dëgg ci yow daal wax te ñi ngeen fi gis ñuy buur aka dal ñu di leen téye bala moo am ayug bis di nga dégg seen xaqtaay ca kaw te mboolem mbokk yi ko fekke woon yëpp wax nañ ne non nee la demee woon non nee la woon ñooñu nga xam ñoo daa daanuy jël ñu di leen téye daanaka balaa fukki fukki fan yaamat ñoo daak xaqtaay nga xam ne kon day mel ni kon moom xikma bi ko suñ borom ma yoodu waaye nag wattaqullah wa la suñ borom ma wax ne ragaleel yàlla mu xamal mu xamal ragal gi mu ragaloon yàlla eggoon na ci moo tax suñu borom tabaaraka wa taala joxoon xam-xam boobu waaye joxoon ko xikma yooyu nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala mayoon na ko ko kon dañuy ñëw rek ci sëñ Abdul Karim maanaam rôle bi nga xam ne suyee na ko ci xidma ak ci tarbiya liggéeyal sëriñ bi ak nag ci tarbiya ñi nga xamee ne ñoom la àndaloon bala ñoo dem ñi ngi fàttaliku bu baax suñ mag ñi nga xam ne jaaroon nañ ci ay loxoom mel ni Baye ñu ngi jokkoo léegi mu bari yu bari yu may nett li sëñ Abdul Karim doomam a ngi nii teew mu tudd ko sëñ Abdul Karim muy sëñ sëñ sëñ Abdou sëñ Abdul Karim Gaye ni ngi noonu bàyyi góoram loo moom itam bokkoon ci ñi mu ànd àndoon moom ci liggéey bi sëñ Xaadim a ngi nii toogoon fi di maam ci sëñ sëñ sëñ sëñ Abdul Karim mi jox sëñ jili bu ko defee rek mu ñëw ñun ci sëñ Abdul Karim maanaam rôle bi nga xam ne amoon na ko ci liggéey ci liggéey ak rôle bi nga xam ne amoon na ko ci ci yar njaboot gi te loolu moo ko yóbbu woon ci xañ na muy samp ay daara moo ko yóbbu woon itam ci fu nekk mu defewut ay barab ngir mën a wéet ak jabar gu man leen a defar bisimilah. kon sëñ na Diokhané noonu ko noonu ko waxee rek noonu la ñuy dikkee incha allah euh, dugg ci noonu muy dawruhu fil xidmati wa tarbiya ku ne xam ne ne yoonu murid rythme bi ñu doxee mooy boobu te Serigne Touba bi mu dikkee loolu la fi indi ndax mel ne bu njëkk fekkoon na fi jàng waaye wax na Nabi sallallahu alayhi wa moo ko feeñu ci Mbàkke Kajoor wax ko ne ko. rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darch am nañ ci wax yokk faqat loolu kon rythme mu bees la muy boole nag jàng ak liggéey waaye jàng ak yar moom nag ci eh, naw boobu ci la doon ci la doon doxe ndax Sëriñ Tuubaa itam eh, dafa bëgg nit ki eh, tàggat boppam ci dunde lew waaye itam yar jëmmam ci digganteem ay moroom waaye ci digganteem ak boromam loolu mooy tax nit ki mën a am euh, stabilité ci kaw suuf moo tax mu wax ne moom Sëñ Tuubaa ne euh, uddu ub ala talamusil xalaali tanju min al xutubi wal ahwaali mu ne yow nit ki nangay ngay ak sàkku lu lew ndax ci loo sàkku lu lew loolu ci ngay mën a muccee ci mbamb yi mooluy nit ñi waaye ci ngay mën a mucc itam nag ci euh, tiiti adduna waaye itam ak alaxira ndax ki nga xam ne moom du dund lu lew du mucc ci tiiti adduna yi du mucc itam ci itam àllaaxira ndax bu fekkee na muy sàkkoo alal du lu jaadu fu mu toll ci àdduna moom du nekk jàmm àllaaxira itam niki noonu moom sëñ bi dafa fonk da ko lool euh, bari na lu indi ci euh, xasaayid yi wala ci kutubul ilmi yi nga xam ne euh, taalif na ko bokk na ci abyaat yooyu dafa wax ne wajtahidu fi talabil xalaali fa huwa muqarribun litil jalaali na ngeen farlu ji ñëpp ci sàkku lu leew ndax nee na sàkkru lew kat mooy tax nit ki mën a jege boroomam ndax nit ki bu fekkee dafa jug ne day jaamu yàlla te dundiwul lu lew kooku jege yàlla dana ko jafe ndax too maanaam tooñaange ak euh, bàkkaar yi nga xam ne mooy tegu ci kawam bu fekkee ne nit ki ku nangoo jaamu yàlla la euh, te na muy jaamoo yàlla itam jaamoo ko nañ ko war a jaamoo boole dund lew kooku jege yàlla mën na ko mën na ko yomb moo tax sëñ bi wax ne wa talabul xalaali euh, fardun yentami li kulli muslimin bi gayri wahami dafa wax ne euh, sàkku lu lew sax euh, liggéey sàkku lu lew mu ne kooku farata la ci bu jullit ci lu njuumte te noonu itam noonu la demee Sëriñ Abdul Karim nag euh, mënees na ko nattu natt ci foofu moom ci loolu la nekkoon ba ci wàllu xidma gis nañ ne dëkk yu bari ci bawal jaar na fa ngir lu mel noonu muy li ñu tuddee xidma ak ak ak tarbiya lu mel ni Samsek lu mel ni Daruloo ah Touba Bogo itam eh, eh, ni ni ni ni ki noonu defe naa tàkk itam ni noonu ah, Kajoor itam xam naa ne amoon na fa ay barab donte xam naa fii la guru nay eh, ëpp ay ay pété waaye loolu lépp la fu bun mooy yar njaboot gi waaye itam xidma ngir pàggute bi nga xam ne moom la sëriñ bi wax mu maanaam mu tërale ak dundam ci ni nga xam noonu la ko sëriñ bi bëggee te mooy noonu la lislaam gërëm mooy la yàlla gërëm mooy li yonent bi sa alayhi wasallam itam gërëm buñ duggee ci tarbiya itam euh, yàlla dogal na sax tey moom mag ñi nga xam ne ñoom la ñoom ñoom la yaroon euh, tey jii ay ngante yu bari ñu dab moo tax mag ñi fekkuñ jotaay bi waaye dañoo sàkkoon sax seenum teewaay nga xam ne buñ tolloo ci parti bi ñoom la ñuy jox ñu yëkkati seen kàddu waaye xaj na bu beneen yoon incha allah ñi nga xam ne ñooy siifur jotaay bi euh, dinañ mën am loolu bu ko defee buñ tollee ci parti bi ñoom ñu mën caa am seeni kàddu ndax mbooleem ñi nga xam ne euh, euh, Sëriñ Abdou Karim euh, ci keppaaral nañ yaroo koo ci gis koo ci gis la ngay njëkk gis ci mooy pas-pas pas-pas bu wér koo ci gis la ngay moom mooy ab yar jikko ju rafet koo ci gis la ngay njëkk gis ci mooy ak mbaax ak ràññeeku ci lu baax ci fu mu mën di nekk te mooy lenn ci jëmm yooyu nga xam ne ñoom lañ tudd ñoom nga tudd léegi ak ñi nga xam ne ñoom lañ tudd xam na incha allah rabbi bu ñu ko suñu borom may bu ñu toll ci yeneen jotaay euh, parti boobu ñoom bu ñu tollee ñoom danañ ci am ay kàddu kon barab yooyu ma wax euh, bokk na ci barab yi nga xam ne sëñ bi jaar na fa ngir euh, wéyale rulu maam ak tërbiyaam ñu gàttal ko ngir waxtu yi buñ ci jógee nag dugg ci sëriñ Abdul Karim Bousso xusnu ala xatihi maa shaxsiyaat fi usratil mbakkiti wal mbusubiti wa xayrihima incha allah waa koy jërëjëf sëñ Jili macha allah ci romb googu nga xam ne jaaraat nga fi ci dawruhu fil xidmati wa tarbiya maanaam rôle bi nga xam ne suyee na ko ci wàllu xidma te mooy liggéeyub sëriñ bi kon a xam na ne murid moom ndax bokk ci ay churut yi nga xamee ne sëñ bi da koo teg ci kaawam mooy alxidma di ca jiitu yaakaar naa tuubaa li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin moo jiitu woon aw bi xubbin aw hadiyaati te ñett yooyu yëpp boo ko xoolee di dugg ci biir xidma ndax almahaba moo lay jóor ci nga ngay liggéey li nga bëgg alhadiya itam xidma moo la koy may kon moom moom dafa bokkoon ci ñooñu nga xam ne dañoo doonoon xaadimul xadim bokk ci li ñuy liggéeyal sëriñ bi tam jafe woon ko lool nag ndax ni nga ko waxee kenn mësu koo xam ci lu dul dunde aw mus musta laaj kenn mus musta wayaasi fenn di laaj addiye wala dara waaye li mu doon def mooy dunde aw ñaqam ba noppi di ko bokk ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi barab yi nga xamee nekkoon na ci yëpp itam fu ci nekk ba mu fa nekkee ndimbal la woon ca waa foofa du nga Sam Seck du nga daaruloo daaruloo gii bay béygay nee na ma ba mu fa nekkee moo leen yorloon añub altine ñoom ñëpp altine te añub ceeb la yoon te booba ceeb kenn mënu ko am ñaareel mooy kafe moom moo leen ko yorloon bis bu set ku ne da ngay xëy ñëw andi sa cafetière ñu duyal la ba mu fees xelil sa waa kër te ñu bari mënuñu ko am moo leen ko yorloon bu fa jógee itam gis nga tàkke gi dongo yi nekkoon nañ ci di fi bay ma ni sama waajur nekkoon na tàkke foofu la bu ñu fa jógee itam fa lañ jógee si Abdul Karim yóbbu leen maam sëñ Fàllu jël ko yóbbu ko Tuubaa Bogo Céenoo itam ku xam ne amoon fa ay tool Céenoo jow fële ca ca ca Kajoor yooyu nag barab yooyu yëpp nag la taxoon mu di ko wër ñaar yi rek la mooy liggéey ak yar taalibe yi ko suñ boole te loolu ñaari ka la mooy al al al xidmatu tarbiya kon xam naa dañuy ñëw rek ci tombu ñeenteel bi te muy relation bi nga xam ne amoon na ko ak njabootu Sëñ moo xam sant Mbàkke wala mbusuba bi wala ñeneen ñi. Euh, dañuy dugg ci loolu rek ci anam gu gaaw euh, muy relation bi nga xam ne amoon na ko ak mbokki Mbàkke yi ak mbokki mbusuba yi ak sax ñu ñooñu euh, bokk na ci relation yi nga xam ne amoon na ko muy ko mel ni Serigne Abdul Xaadir ku mel ne sëriñ Abdou Khadir moom euh, xaritam la woon lool mas na maa nuyu si Moussa Abdou Khadir ba mu ma laajee ma ne ko sëriñ Abdou Karim Bousso mooy sama maam mu ne ma ah kooku day ku xarit woon sëriñ Abdou Khadir ma ngi noonu waaw bokk na ci moom sëriñ Abdou Khadir sëriñ rajo net la ma ne ma at mu jot daana ko gën a si fii ci këram gi ne ma sax buy waaj bàyyi muuri mooy takk watir ba watir moo xew defar watir ba mu jekk mu dem ba ci buntu a ba fii ci kër sëriñ Abdou Khadir gi taxawal ko bu waajee ba ca génn mu indi ba euh, jamono yi nga xam ne watir mooy xew itam fu bare bare bu Sëñ Abdou Khadre daan dem itam euh, watiru Sëñ Abdou Karim Bousso ko daan yóbbu euh, bokk na ci itam noonu la ko amee itam nag dama ciy tudd Sëñ Abdou Khadre waaye noonu la ko amee njaboot Sëriñ Tuubaa yëpp ndax Sëñ Fallu ku ne xam ne moom la féetaloon kooku moom moom la féetaloon ci ci ci li mujj ab dund ak lépp daanaka ku mel ni itam Sëriñ Cerno Bousso Ansawal moom itam wóolóoreem la la woon lool dégg naa mu nettali ne bi suñu farlu gore bogo euh, njëkk nit dafa dem moom ak sëñ Abdou Karim Bousso la yebaloo ñu dem fa guddi fa lañ fanaan keroog ci xayma lañ fa defar rek fanaane fa wàcce kaamil daanaa ko dégg muy nettali ci moom lu lu euh, lu baree bare ku mel ni itam euh, si si sëñ Abdourahmane bu dee Daaru Muxti mboolem waa Daaru Muxti nga xam ne ay nijaayam lañ noonu la amee woon ak relation ku mel ni suñu dan waaye sëñ Abdou mën nañ ci jël sëñ Abdourahmane rek moom euh, daanaka moom sëñ Abdou Karim loxo ndeyjooram la woon euh, bokk na ci tukki yi nga xam ne moom da ko daan def sax moom sëñ Abdou Rahman daanaka fu mu daan dem bu fekkee dafay euh, dafa bëgg xëy sëñ Abdou Karim day fanaani foofu bu àggee daanaka lay jëm ci sëñ Abdou Rahman lépp ci loo xam ne jaar bu fekkee fu mu war a yendu ji la moom dafay xëy e, moom noonu la jaxasoon ak moom taxawu ko ci anam yu baree baree bari ndax ñoom ay kilifaam lañ ay nijaayam lañ itam Euh, noonu ñu ko waxee nag noonu la ko amee ci yeneen yeneen kër yëpp nekk ci euh, Mbàkke ak Mbusoo bi ak Anfe ak yidul famille yooyu ndax moom ñëpp la amaloon euh, relation bu rafet waaye tam jàmm waaye itam li leen boole muy lislaam ak mbokk ak lu rafet rek ndax képp koo ci dugg këram donte fekk kooku mu amaloon relation bi yàlla dogal mu gën adduna itam ak njabootam danañ ci xam loo xam ne boo toogee ñu nettalee ci lu baree baree bari defe naa euh, kon mën nañoo tënku ci loolu waaye mën nañoo cee boole rek euh, euh, liñ sëriñ Abdou Karim Bousso fi misaanil wasin wasaxaay ngir mën ko gàttale gën a gàttale jotaay bi dafa nekkoon itam ko yaatu nekkoon itam ko tabe bay falu ba boobu nett na ma ne ma bi ñu nekk ba ko gis koo xam ne day day am soxla ba amee soxla bu fekkee xool na xool soxla si sa day dikk rek moom nee na daw siggi lu bari di xool nit nee na bu dikk dañuy dikk ci ginnaaw daal di nuyoo daal ah man la diw man de dama amoon soxlaay nangam ak nangam nee na la fa nekk mu yëkkati jox la nee na ma nga dem tuuti daal di dikkaat boo dikkaat yow ma yow ma njëkkoon dikk lay doonaat waaye boo dikkee daal di daal di nuyuwaat daal di man la diwaat daal di wax keneen wen tur nee na mu yëkkati jox te du la sax nee na mën wax ne yow la joxe jigéen wala nga joxe turu góor te fekk koy ki jigéen la nee na te du siggi sax ba xool la waaye la ngay laaj dana ko dana ko yëkkati jox la loolu nag dafay wane maanaam eh, yaatu gum yaatu woon ak tamit ndax suñu dégg naa suñu fàllu di wax ne eh, nee na képp ku ñu eh, wax ne da ngaa tabee te àggoo ci ñu lay nax nga xam naxee nang ko nee na kooku tawiwut moom nag àggoon na àggoon na foofu bokk na ci itam eh, lépp loo xam ne daana ko bay da ko daan sédd lañ jabaru Sëriñ Tuubaa gi ba at mi fi mujj seen laaj net ne ne ma mboolem la mu bayoon da ko séddale def ay cër doom Sëriñ Tuubaa yi ñu jigéen ñi ak góor ñi nee na nee na ma ma man ak bay muuru ñoo ko doon séddale Sëriñ Abdu Laat Sëriñ Abdu Xaadir ah, Sëriñ Suwaybu soxna may yi njabootu Sëriñ Tuubaa fi nekkoon ñëpp ba fas wa fas wa mu doon bay sax dëgg yëkkati jox ko eh, Sëriñ eh, Sëriñ Laat Euh, mel na itam euh, ngir gën a la jotaay bi ku yàlla nangoon ñaan la ku yàlla nanguloon ak ñaan la loolu ñi ko xam ñëpp si li mu gën a ràññee ko sax dafa mel ni loolu la ñi ko xam ci jamono bi nga xam ne ñooy ñooy dund koo ci wax rek dañuy wax nangu goo xam ne yàlla nanguloon na ko ak ñaanam waa ak wilaayaam euh, ba nekkoon na koo xam ne jaan sax bu la masee mat nee nañu bu la solee mbaxanaam rek Euh, tooke ja euh, tooke ja wàcc euh, am na yeneen karaama yoo xam def na ko waaye loolu moom duñ ko tudd tey duñ duñ ko tudd ndax xañ na li ñu gën a mën a jëriñoo mooy li ñu doon waxtaan ndax Sëriñ Tuubaa dafa wax ne karaamatul wali an laa yaxsiya fi zahirin wa batirin faltadaya nee na wa wali gi jar ndama mooy mu bañ a mooy yàlla te moom ci loolu lañ ko xamoon kon Sëriñ Cheikh dañuy taxaw foofu joxaat la bu ko defee buñ dikkee rek ñu dikkee ci euh, euh, sëñ sëriñ Abdou Karim Bousso wa wafa ul aadi wal asmi bu ko defee foofu la ñuy tëjee jotaay bi incha allah rabbi ak jërëjëf sëñ Jili macha allah ci leeral gu am solo googu nga xam ne andi ko ci sëñ Abdou Karim Bousso ak relation bi nga xam ne amoon na ko kilifa yu baax yi yaakaar naa sëñ Abdou Khadir moom dañ leen jox sax image boo xam ne ñoom ñaar ñoo ànd ci photo bi incha allah boo xam ne yaakaar naa ñem ko amal bëriwut ñaaral bi itam mooy sëñ maam sëriñ Bousso mii rek ñu may nettali Eh, nee na miinoon na ko lool ci kër gi rawatina jamono Sëñ Abdou Karim yi mujj bi mu tollee ci tawat ji nen lu baree bare daana fi ñëw di ko di di seet Sëñ Abdou Karim di ko fekk ci kër gi doy na ci misaal keroog bi muy faju ji di dem di faju ji dafa sàkk dafa dafa yónnee ci moom laaj ko ndigal ndax mu dem faju ji am déet ba mu jox ko ndigal mu doog di ne ñaari yoon benn bi Sëñ Abdou Lahad la benn bi Sëñ Abdou Khadir nga xam ne loolu day wane ak taalibeem ak eh, ak eh, ni meloon ci maanaam gëm Sëriñ Tuubaa ak wóolu ko ak jébbal ko léppam waaye tudd na fi ay jëmm ki ma ci gën a kii mooy nijaayam si Abdourahmane ndax moom dadoon doon léppam daarul ma naan gii bi mu koy sanc wax nañ ne loo ñuy wax chef de village moo ko fi njëkk a nekk moom la ko soxna Faat Cerno booleeloon ne ko boole naa la ak Abdou lépp loo xam ne yaa ngi koy def na la ci taxaw si alaaji nett la man daa xëy bi bis fii dem ne ko man day dama doon jàng Masaalikul Jinaan ba egg fi sëñ bi di wax ne ëllëg yomal xiyaam bu nit ak jinne ak malaayika teewee ba nit ñëpp tiit di lox dinañ dégg ko woote ne ana ñi daa liggéeyal julli ni ñu ne ñeengu nii mën a jaar leen nii dem àjjana mën na ko sëñ Abdou Karim ko damaa bëgg a bokk ca ñooñee moo tax damaa bëgg laxas dem ca daara ja nee na sëñ Abdou sax bi ko waxee ne woon ko yow da ngaa doole waaye sëñ dina ko rek bàyyi ma ma dem ci la laxas dem fetto am na fa ñaari at defa di bayal sëñ Abdou Rahman nga xam ne soxna Kunta fii la daan waajur sëñ Alaaji fii la daan yanoo bis bu set paanu ndox yóbbu foofa ba àggee duñu daaya balin néeg bi defar daal di dellusiwaat mag yi sëñ Abdourahmane yi ngay gis ñuy kuréel di daaj xasaayit boo fa demoon tey jii macha allah ngi jàng dàkk jàng xasaayit ci réew mi ci lañ bokk moom moo leen formé jàngum xasaayit moom ñëpp mu leen daan sax ay xasaayit bañ mokkal ko ñoom ñëpp mën naa cee lim ñu mel ni Baye Cheikh Diba ñoom moom Baye Mbaye Diouf ñu bari lañ ñoo xam ne tey ñi nga daara mën naan tey ku leen taal ñu micro ñu waxal luñ loo xamul sëñ Abdul Karim sëñ Abdourahmane moom itam moo ko taxaw woon ci biir dëkk ba ak njabootam ñi ci ëpp wax nañ ne moo leen tudd bu gàmmuma saa ñëw fulku bi moom moo koy jàng maanaam astafurlah barzan bi moom moo koy jàng bu daan tukki itam ni nga ko waxee moo ko daan jiitu dëkk bu mu àgg ne leen sëñ baa ngi ñëw bu ko fekkee mu jàll beneen dëkk ba tukki bi jeex bi mu ginnaaw bi mu génnee àdduna itam moom moo taxaw samp ab taawam sëñ Mudu Mbàkke taxaw moo ko sëñ Abdul Xuddoos miraas ko taxaw fa fexe ba daaru daaru daaru mar naan des ci loxoy waa kër sëñ Abdourahmane loolu sëñ Abdul moom moo ko liggéeyal Euh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Abdourahmane Cheikh Mamadou Fadil itam bi mu koy yóbbee Touba Bagol noonu la meloon ndax bi fa sëñ Fallou nekkee ñu bari la fa nekkaloon ci bokk yi bi sëñ Fallou wàccee bi liggéey bokk yi ci bari dañoo dem moom rek moo fa des te sëñ Alaaji nee na ma boobu masaa xëy day ànd ak ñoom dem ci daara ba demee ci daara ji di waxtaan ak ñoom di leen naab di leen yedd di leen delloosi ba daara yëpp toog seen xel daal mu ne leen sëñ Fallou jóge na fa ay sëñ mu fi ku doon topp sëñ Fallou te muy dëkk ci yow jël sa bopp jox suñu mënu te àggale sa liggéey ci moom ba donga yee kenn demut loolu moo ko liggéey la fa nekkoon ci daara bari na loolu waaye daara ju ne def te bu am masaaxa xëy day wax ni li ngeen togg bu leen ko sensé li ngeen di togg ci laa bëgg jëfandikoo ak yéen yenn fa ak ñoom di waxtaan ñu ba seen xel daal mu jàll jeneen daara ba daara yi jeex daara Sëñ Fallu yëpp moo tax ñu toog ba dong yu bari ci dong Sëñ Fallu yi tey Sëñ Fallu yu wàcce waleen Sëñ Muur Buso Jeŋ moo leen wàcc loolu Sëñ Abdou Karim liggéeyal na ko Sëñ kon loolu day wane alaaka bi nga xam ne amoon na ko ñu bëgg suñ Tuubaa gi waaye ak taalu bi nag ci diggante mi nga xam ne ay kilifaam lañ kon dañ lay jox rek ci lu nga ñëw ci maanaam matu matalu kóllëre maanaam ni mu amee woon kóllëre moom Sëriñ Abdul Karim bu ko defee ñëw na kii seere yi nga xamee ne gaa yu baax seere nañ ko ci moom doog a tëj jotaay. incha allah mel na ni matu kóllëre goo sax dugg nga ci laal nga ci dara mooy loolu nga wax ci digganteem ci ginnaaw Cheikh Amadou Fadal ndax xam nga yàlla dafa dénkaane ne wa afu bil ahd inna al ahda kaana mas'ula na ngeen di matale kóllëre ndax kóllëre kat bokk na ci li nga xam ne suñu borom da koy laaj bu ëllëg yomal xeyaam wolof itam dañoo wax ne kóllëre ginnaaw lay féete kanam ginnaaw lay féete kanam mooy e, comme lu mel ni mu def ku amoon dogu la itam ku amoon dogu la te gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko wax ne ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar rusul te ulul asmi e, mooy yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla tànn ci biir yonent yi tam muy lu néew sax ab lim bu néew kon asmu boobu itam yàlla da ko defaloon euh, bokk na ci matu kóllëre googu nga wax muy gin comme ni nga xam ne noonu la sàmmi woon ci ginnaaw Seexul Fadal ba lu baree baree bare nga xam ne day xew ci ginnaaw nit ku baax ku fi juy ku nekk ndax si ci jëme yonent bi sallallahu tàmbali yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ déclaré ne génn àdduna am na ñoo xam ne ca lañ gàddaay ba kenn am na ñoo xam ne dañoo tàqaliku seen sago ba defe naa Sidna Ali keroog moo wax ne képp koo xam ne Muhammad nga doon jaamu xamal ne Muhammad wéy na waaye nag koo xam ne yàlla nga doon jaamu suñu borom mu jugu fi loolu nag indiwaat na ca aw nit euh, loolu moo fi mas euh, mooy mas dal doomu aadama ci kaw suuf ci bu jamono teg nit koo xam ne jamono ko mel ko mel Seexul Fadal njaboot gi itam comme noonu ko waxee loolu mooy li nga xam ne moo amoon ku mel ni Baye euh, nag na ma ne ma bi nga xam ne Seexul Fadal ma ngi doog dem ñi nga xam ne ñoo waroon tollu ci euh, wut soxna yëpp nee na moo leen wutal soxna ñi nga xam ne ñoo waroon toll ci néew yi itam moom moo leen dugal euh, néew góor loolu tam metti woon na nag ndax booba itam euh, moom kilifa la woon ci ci ay wàll yu bari moom Cheikh Karim taxoon na tam ñu soxla ko ñu soxla ñu soxla woon ko lool moom ba comme que léegi Sëriñ Fallu nekkatul Bogota ñu baree bari ci kilifa yi léegi ñoom dellu nañ ci war a bañ nekkoon moom sax am nañu doon sàkku ngir mu bëgg mu dul si waat si njaboot gi waaye rek mu xamal leen moom kat euh, du ko man léegi ndax euh, dem euh, loolu sax dem na ba àgg suñu rahmaan si si rahmaan woo ko ne ko yow ko naa yaa nga toog Tuubaa boo dañ ko wax ne ko Abdou Karim day maanaam am fàkk buuf la lu mu xas ba dugg rek du ci génn de te ne ñëpp dem nañ moom rek moo fa des nee nañ mun na leen mu wool ko mu ñëw mu ne ko ah dégg naa yaa nga Tuubaa boo ko toog rek looy def foofu du xanaa war ngaa mën a dellu si mu ne ko ah man ko Sëñ Tuubaa ma joxoon ndigal te dama eh, joxaat eh, dama jotaat ko ndigal kon loolu dafay wane kóllëre gu am eh, gu mu am matu kóllëreem waaye itam ak dogu loolu loolu ak ak mooy ak dogu waaw kon loolu taxawaay la bu am solo boo xam ne def na ci ginnaaw Cheikh Amadou Fadal lenn li tudd nga ko kon mel na ni ngir ñu tënk jotaay bi rek moom dama ci taxaw foofu bu ko defee ñu wax nag man at la génne àdduna loolu dama koy def ci ay ay yoo xam ne moom lay tëjee nii incha allah rabbi eh, danaa la wax atam ya fii ci duniya feeñam nga ak laqom nga xam naa mbir ya atam ya fii ci àdduna moo di juróom benn fukk ak ñett la way raw nay moroom at yile nag moom la yoneen ba dundoon mu arriqu na ya xamoon lii lañ waxoon moom juróom benn fukk ak ñett loolu la dund Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itam nee la dund ci kaw suuf hmm. atum junneeg juróomi ñeenti téeméer yu teg juróom ñaari fukk juróom la réer loolu mooy quinze ñaar fukki fan ca aw tabaski la woyoon bu toftalee ay bis la zul xijja la woon kon loolu mooy li nga xam ne moo aju ci at mu dund yim dund ak at yi nga xam ne moom la génn àdduna yàlla mi giñ ci xalimaak lam rëdd laay ñaan mu dolli koy ngërëm fam tëdd te def sëriñ abdul karim bu soobi ca waaili yii keroog bis boobee defal ko yërmande gu ànd ak dolli ko leer ca barsaq ak ñam àndal sësët bi nag jaylaani moo doon taarixal ak lëf ci ko weexal amina amina wa sallallahu ala nabiyina wa man walaahu jërëjëf sëñ Jili macha allah ci euh, waxtaan wu am solo wi euh, sëñ Abdul Karim day géej ba kenn mënu koo jeexal géej moom dañoo wax ne loo tàng-tàng day mel ni da ngay te maanaam tàng géej moom fii la ab coono mën a yem waaye nag mënuñoo tëj mukk te waxuñu seere yi nga xamee ne gaa yu baax yi seereel nañ ko ko la ci jiitu mooy sëñ Mamadou Cheikh Mamadou Fadal sëñ Jili wax na ko léegi. la ma wax ne Abdul Karim faxalul min fuhuli diin yaakaar naa doy na sëkk bëkk dem rek sëñ Cheikh Sall bi ñaanuk sëñ Mamorum sëñ fàll dafa nu ñuy sëñ alaaji rek daal di wax baat yooyu sëñ bi ne la ko waxee mu ne ko sëñ Ceerno jox ma ko nekk li ne ma fekk ne bi sëñ Fàllu di wax ne Abdul Karim faxalul min fuhuli diin yaakaar naa loolu doy na sëkk seere ñaareel bi mooy sëñ naa loo sëñ Cheikhouna Lo nettal na mu ci làmmiñam ne ma mën day yàlla dama boole woon ak moom ndax moom ñaar seen ñaar waajur yi ñoo bokk lépp sëñ Abdul Karim doon magam tax xoog moom lool waaye nee na ma day bi ma tàggu ko moom ba léegi maa ngi wër ku mel ni moom mënuma koo gis daan may wax ne ma alkarim bi kulli maanal kalima moo nekkoon ci moom maanaam li baat bi li baat bi ëmb alkarim nee na moo nekkoon ci sëñ Abdul Karim ne ma ba ma tàggook moom loolu kàddu gu réy réy la ndax sëñ sëñ seexu naa gàttut aw fan te itam gàttut ab tànk te itam ku dëggu la woon boroom xam-xam la woon leneen bi ma tàggook moom day ba fi mu toll nii maa ngi wër ku mel ni moom mun ma koo gis loolu yaakaar naa euh, taxawaay la njabootam gi itam muy ñi nga xam ne ñoo la bokkal sëñ sëñ sëñ ma roq itam ñoom ñëpp koo ci ma sa toogal baat bi benn lay doon ci taxawaay boo xam ne taxawoon na leen ko ne ñoom ñëpp ku ci ne amoon nañ jëw taxawaay bu ma sëkk ba ci seen dëkkaale yi sax noonu la meloon ndax soxna Baye li may wax ne ma soxna Daba moom sax moom ko jot la ma ne ma fooy wax na nga waxaale loolu ndax nun ñii bi suñu waajur ñëwee moo ko jël teg ko ca kaw jàppale ko boole ko soxna Kounta ne ko ba mars sax bu fa dem bul dem mars bul dem ca teen ba lépp nañ la koy defal ba mu mën a nekk ci kër nga xam ne yooyu ay geste yoo xam ne ñoom ñëpp ku ci ne suñ maam Serigne Bousso mii da koy day wax ne man maam taxaw moom rek laa xam ñeneen ak ñeneen ñu bëri tey koo wax ci kër gi benn baat boobu baat benn lay doon. niki noonu taxawaay boobu la amoon ci Darou Mouhty dañ see asufay net la ci ma boo xam ne maanaam jataay bi laaju ñu koy waxtaane ndax média waaye booba kilifa moo waxoon wax joo xam ne maanaam buñ ko bàyyi woon mu jàll mën naa am lu mu jur waaye ci fit ak xam-xam ba ak ak ak ak dal ga moo jóg wax ak moom wax joo xam ne kooka daal ne xam ne la lañ ko war a toon toot nañ ko ba mu ba mu la nga xamee ni moom lañ ko wax ak yeneen ak yeneen ñoo xam ne ñu ci bari tey euh, boo ca demee ci ñoom niki noonu sëñ sëñ sëñ sëñ bàcc bi sa bu gede nettali ma ci ma waxee boo xam ne nee ma ko fekke ne te boobu mi ngi ciy nettali maanaam ragal gi nga xam ne nit àdduna yi bàyyi ragaloon nañ ko bàyyi woon nañ ko xel ne dafa ñëw gerte fekk ñu takk maanaam li ñuy tudde danaa moom ba mu xew ne bu mu ñëwee daal di toog ci penc bi ñu tegal ko seet bi mu toog mu laaj ne fan la lamp yi ñu ne ko li penc mi mu ne nañ ma wol ki ko jiite liggéey bi ko ko biñ ñëwee mu ne ko dama bëgg fi kër yi yem na fa lamp yooyu yem mu ne ko xanaa kon ma dem laaj ndigal mu ne ko maa ngi toog di la xaar dafa dem Mbàkke laaji kilifaam ñu jox ko ndigal mu ñëw toog Cheikh Abdou Karim toog fa bañ defar làmp yi ba booba kër yi bëriwut ba kër yépp mu wër ko mu tàllal loxoom ñaanal leen wal leen ginnaaw dem ne loolu day wone maanaam li suñ borom li suñ Tuubaa wax ne aysuma taqaf ilaahaka al ahad yaqaf ka min xawfikahu kullu ahad kullu ahad képp saa yoo ragalee yàlla rek lépp ragal la yoo nangu la yàlla itam lépp nangu moom noonu la meloon suñ bi tënk na ci ak euh, wàcc liggéeyam yaakaar naa du sori 1975 euh, janvier 1975 ni ma ko bàyyi bay ju faxe fii ci Touba almaharu sañu denc ko fii ci barab yu mag yi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu yokk ay leeram yokk ay ngërëmam taas ñu ci barkeem te njabootam gii suñu boroom bàyyi leen fii tàmbalee ci xalifaam suñu fàllu buso di ko ñaanal suñu borom te moom itam nag foo juró tegoon am tànkam rek la teg tànkam ndax fa suñ fàll yóbboon woy juróom fa la suñ muru bu si yëng jël ko yóbbu ko fa booba 1985 ba léegi ba fi ñu toll nii jógewu Touba Bogo ba lu bari ci ay nit jaar ci loxo mu jàngal leen tërbiya leen la war ci ñoom lépp mu def ko ba fi ñu toll nii mu ne ci dëkk ba nekk yor fa diina ja na ko way juróom yoroon te itam kenn du ko dékk ci lenn lu dul jàngale alxuraanul karim jàngale xam-xam jaamu yàlla ak jàppum jàmbur ñëpp loolu lañ xam ci moom ba seere sa way juróom ca amoon mu am ko ci sëñ Mourou Bousso Dieng ndax sëñ Mourou ma wax ne alaaji de sëriñam nalli la sëñ Saalih Mbàkke mii wax ni sëñ bu ne ko sëñ bu sa yëgal ne maa yow ñoo bokk bëgg loolu nag yaakaar naa ñaari seere doy na ci moom ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu may ko wér ñu ngi siyaare eh, di sant bu baax sëñ jili ci waxtaan wu am solo wi waxtaane samaam yombut waaye macha allah ku ko dégg di nga xam ne waxtaane wu ngir lu doon samaam waaye da ko waxtaane lenn ci ay dugg ci biir waxtaan wi lépp dafa ànd ak ay yu leer naññ ak ay maraajax yoo xam ne ku bëgg mën nga caa dellu ngir xam ne li ñu wax lu wér a la ñu ngi siyaar baax sëñ Abdul Karim mi nga xam ne muy njiitul jataay bi di siyaare Sëriñ Abdou Samad Bousso mi nga xamee ne ab sëtam la ñaari woon moom itam ne ci jataay bi ak euh, bokki taalibe bi ñu fi nekkal Sëriñ Xaadim ak sëñ sëñ Abdul sëñ Abdul Karim xam naa day jox Sëriñ Abdul Karim mu ñaane bu ko defee ñu daal di yëkkati jataay bi incha allah